jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen sit site dakarmatin.com comme ni ñu koy defee ay bés bu nekk fas yéene ñëw rek dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique di waxati ci mbiru xalifa Sall lu tax lu jaaduwul jaaduwul lépp lu ma ci ma a wax daanaka gis ngeen ko ba ci mujj moo di la xew ci assemblée national awma ci woon benn xel ñaar

votelu sénégalais yi ca booba ñépp ci lim bu takkoo takk ne député yi daanaka ku ko voté dee lii kenn du ko voté lan moo wuutale député ya nekkoon foofa ca booba la 23 juin ak député yi dara ndaxte sénégalais yi jàpp nañ ne député yooyu dañoo nar a salfaañe loi ak ay règlement yu réew mi ak yu constitution bi député yi lu ñu mel lañu def ci anam bu gën ñaaw nak motax damay ci chronique bi ne ci réew mi jamono violation état de droit ak banditisme d'état la institutionnel lalco. banditisme d'état Gangsterisme institutionnel lalco. du loi du règlement du lenn lu ci mbiru xalifa Sall firnde mënu ko weesu ndax dindi malaanu kiirlaay bu député dafa am nu ko sart yi tërre rawatina réglement intérieur bu assemblée nationale ngalawaay li ci gën a doy waar koo solalul ba pare noo koy summee ndaxte nu waxante dëgg rek te yàlla tax immunité parlementaire bi ñu dindi nekku fa woon ndax bu fa nekkoon ba conseil constitutionnel joxe résultat yi dañ ko génn ci kaso Rebeuss mu dem siéger waaye loolu nag intelligence politique sax moo koy maye ndax bu amoon xel tuuti bañ a def yëfu dof ak yëfu ku soxor ak yëfu ku iñaan mënoon nañ génn Khalifa sàll bàyyi ko ba mu siéger ba noppi ñu jël seen majorité électronique exécuté ko lever immunité parlementaire te dafa melni immunité parlementaire moo amatul ci ci immunité parlementaire danaka dindi nañ ko fi amul article 51, article 52. deux la wax dafa leer samp commission ad hoc déglu député bi convoqué ko mais fait convoqué Khalifa Sall ten tëj ko biir kaso nan lay ñëw wuyee ci convocation bi te ci biir convocation bi binduñu fenn fu mu dem war a wuyu ji ñaareel ba nga ne yaa ngi dem yow rëbës tendre kenn koo xam ne da nga bëgg a jëlin immunité parlementaire am mais ku nekk ci biir kaso rëbës kay yoratoo immunité parlementaire c'est un détenu kon nga xam ne ànd ñu sax seen sago bu ñuy def yenn yoo xam ne ak ndof lay nuroo te li ma ci gën a jaaxal gën cee doy waar waxuma jaar jaaru mustapha Niass ndax moom xam na <laughs> luy immunité parlementaire ndax ba ko met xawlaa bëggee yëkkati ñu créé commission ad hoc mu met xawlaa dafa jël 6 milliards ci sanacos lu xew ba mu ñëwee ci commission ad hoc bi bañ ko tegalee ay kàddoom dafa ne lii du sama baat wàdd ne comme kilifa gu toll ni moom dem na bay wax lii sàng ko sutura bàyyi leen mu jàll waaye Moustapha Niass saa boo ko déggee après cinquante ans de carrière loo koy dégg muy wax jë yàlla yenant bi Christ tey jii ñu mën a laaj est-ce que gëm na kàddu yooyu muy wax ak wax yu sell yooyu muy wax di ko jëmale ci yàlla ndax ci àqulaayu taalaam ci tëraalu bàmmeelam moom xam na lu mu def jalgati moo fa am bu rëy rëy waaye loolu nag ci kanam dinaa leen wax lu tax Seydou Diouf ñu ne mooy rapporteuru commission bi war a bind rapport xanaa booy bind rapport danga ne lii la ñu wax ci yow lii nga tontu waaye boo dégluwul ki nga xam ne moo la war a indil tontu bi mu di kan Khalifa nooy bindee rapport foofu nag Seydou Diouf da ngaa wor héritage yu Mbaye Jacques Diop mi nga xam ne mooy sa parrain politique Mbaye Jacques Diop mën nga ko waxal lu ne waaye nekkoon nit koo xam ne dafa gëm loi gëm état gëm république lu koy firndeel ba mu fi nekkee CRAES Wade na ko jox ma la moom la dénkoon mu ne ko nekkuñu ci lu ñuy joxante ci république la ñu nekk kon yow fi mu nekk nii li mën a wax mooy sa taxawaay war héritage yu maître Mbaye Jacques la fa mu tëdd yëngatu na bés bi nga ko defee ay miiru ñing

li mën nañ ko gëmlo sénégalais yi procès équitable lañ bëgg def motax ñu dund immunité parlementaire bi jalgati bi nek ci procédure bi yëpp au plan judiciaire ba tay ji ñu dalgati pouvoir législatif bi def lu neex ñu né non oui c'est juste pour lui assurer un procès équitable bismillah nañu dem ci procès te la xew république amatu fi wuññante sutura moo fi am kon luy dëgg mooy nit ñi ànd ak xalifa sàll ak xalifa sàll ci boppam nañ ñu may jàmm nañ taxaw wax sénégalais yi dëgg ne caisse d'avance bi diw diw diw diw ak diw ñii ñëpp lekk na ci caisse d'avance bi 2009 ba léegi nag ku si mës a comp rek ñu wax ko bind turam mu leer nañ génne ko nañ ko yore woon tamit ñu convoqué maire yooyu ñu wax dëgg rek lañ bëgg mu jib na dëgg jib amatul dara lu ñuy làq amatu fi dara lu ñuy làq comme dañuy fàtte ne république day sutura comme fàtte nañ ko waaye waay nañu wuññi lépp mu leer nañ mu nekk déballage bu rëy sénégalais yi gindeeku xam lu xew xam ñu daan rang ci mairie Dakar di jël ca caisse d'avance ba ba nekkatul woon dara ñu leen daan xettali amatul dara luñ fi nëbb ñu nekk ci weer wu sell di weeru mawlutul nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey jii may laaj famille religieuse yépp laa interpellé ma kenn jox leen ormo sutura respecté leen waaye nag dañ leen di laaj dañ leen di laaj laaj woo xam ne faw ngeen tontuñu ci timit damay faral di dégg ngeen di wax ne ñun ku fi yàlla teg moom la ñuy ànd ndax yàlla mooy tànn ku muy fal ñépp d'accord ci sooratul mulk yàlla mooy tànn ki muy fal tànn na ko ba noppi ndax ci coobareem la waaw est-ce que yàlla dafa bind ne su ma falee nit ba noppi muy def lu ko neex la ko war du ko def du respecter loi du respecter règlement du respecter institution man kilifa diine bi dama war a patt pattaaral noppi di ko raay di ko wax lu ko neex dama nekkal fi askan bi yëpp ndax dañ leen mooñaale réew mi ñu yaakaar leen ci zaahir ci baatin duma interpeller jàngu bi église bi déedéet ñoom ba mbir yi xewee waxoon nañ ci lu leer taxawaay bu mucc ayib wax ko famille religieuse yëpp nag lañuy ngir réew bu tolloo fenn fi ñiy def loo xam ne jaaduwul namm nañ maam Abdou Aziz namm nañ Serigne namm nañ yaay dañ ko daan dénoncé maam si da baax sa zawiya ba la daan toog dénoncé ko kon nañ delloo si xel yi yedd ñi war a yedd te li doy waar ci mbir mi lu gàtt la ma wax leen ko moo di réew bi fu mu toll lu mu gën a rafle mooy ànd nawle xam nga Macky Sall deful Moustapha Niass nawle daanaka da ko xeeb parce que bu tëjoo ci biroom xam na ne mi ngi koy sant muy def lii te Moustapha Niass dina ko non ce n'est pas normal il ne faut pas le faire parce que jaaduwul Macky bu tëjee ci biroom na xoolal paa yu am cinquante ans de carrière yi la ma leen di defal moo tax. lu ma ñu def ko Tanor nawle parce que bu jàppoon Tanor n'y Tanor dina ko ah nañ respecté loi ak règlement dëkk bi ak lu dem parce que loolu la leen xeex ci ablay dañu bëgg a wax ju bari juge magistrat parce que nee na ñii leen sant ñu def ko par la force député yi jàppewu leen nawle ay député suffrage universel moo leen élire donc sax ñoo yem sax ñu leen fale kon mën a réew mi dafa tum ranke nawle dama benn mag ju baax dama daan waxtaan ak moom mun ne ma xanaa xamoon ne Léopold Sédar Senghor daana indi loi yoo xam ne da ko indi assemblée national nit ñi ñëw ba bureau politique parti socialiste na ko duñ ko voté ñooñu buñ ko waxee ne duñ ko voté mu ne lu tax doo leen ko voté ñu ne ko jaaduwul duñ ko voté ma ne ko waaw góor gi lu tax député yi duñ def lu mel noonu mu ne ma raas booboo fi jeex raas boobu moo fi jeex fulla fayda jom fit gëm yàlla dénk ko lépp nag kon réew mi fi mu nekk nii ak fu mënta toll ndax ëllëg ak si bés bu xeexoo amee bés bu laalee amee di nga gis kilifa diina yëkkati wax waaye booba ñi ngi gis loo xam ne mi ngi dem weng taxaw jaaduwul ñoom ñu d'accord ci noppi ko dañ leen di ñaan nag ngeen yëkkati seen baat ne nii ngeen di def Khalifa Sall teg leen lépp ci yoon boo leen ko bëggee àtte boo leen bëggee jël immunité teg leen lépp ci yoon mu wute ay avocat ñu layoo ko waaye bu leen jalgati sart réew mi ngir seeni bëgg-bëgg ngir lan éliminer adversaire politique waaw est-ce que jaratina éliminer adversaire politique comme Macky Sall garantir nañ ko deuxième mandat te lépp li muy def adversaire politique kon kay jaratul éliminer adversaire politique na ñeme rek ñëpp dugg ci langue gentleman Sénégalais yi tànn yàgg naa leen wax ñun mënuñoo wax bu but Sénégalais yi bëggee falaat Macky Sall duñ ko falaat waaye nag am nañu droit la taxoon ñu doon xeex république des valeurs indiwaat république respecté texte yeeg charte yeeg loi yeeg règlement yi buñ gisee ne ñu ngi koy jalgati ñu ne naa doy na doy na. jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ci déglu bi di leen di daje seen beneen chronique seen site dakarmatin.com incha